asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di delsi ak yenn ci l'émission des émissions ñi nuyu bokk yi nga xamante ni ñi ngi ñuy teewlu ak fu waay mën a nekk di am ci ñëpp mbégte ak kontante nuyu nañ sénégalais yi nekk ci biir réew mi mais aussi nuyu sénégalais yi nekk ci bitim réew tey di ajjuma ñu war a waxtaane ay poñ yu am solo lépp jëm ci li nga xam ni moom lañuy wax actualité ak xew-xewu jamono ñu ciy joxe sunu gis-gis ak sunu xalaat di rafetlu encore une fois sénégalais yi nga xamante ni bi ñu ngi ñuy teewlu fu ci ne ci bitim réew ak ci biir réew mi di yëkkati seen kàddu di rafetlu li nga xam ni ñi ngi koy liggéey fii ci solution TV di wax ni leen seeni ñaan mi ngi yegg si ñi ngi dégg yét yóbbante yi maanaam ñi ngi am mbégte ak bànneex saa su mbokk yi tey ñu war a waxtaanee ay poñ yu am solo bi ci njëkk di sunu wóllëre di sunu xarit di Cheikh baara njaay borom def gis ñu war a waxtaanee ki nga xam ni mooy Cheikh baara Ndiaye mi nga xam ni ci jamono ji ñu nekk nii di wax ak yéen dafa amlante ak li nga xam ni moom la ñuy wax yoon ñu koy ñaanal mu delsiwaat ci li nga xam ni mooy liggéeyam ndax sénégalais yi soxla nañ ko ba ca topp ñu war a waxtaanee ki nga xam ni mooy journaliste boobu di Alioune Ndiaye nga xam ni yëkkati na ay kàddu am comparaison bu mu def la mu def nag ñu fas yéene joxe sunuy xalaat ci ginnaaw bi nga xam ni joxe na xalaatam ba yeggal ñu joxe ci it sunu gis-gis li ñu gis ak li ñu xalaat ci li nga xam ni mooy kàddu yi mu yëkkati bi ci topp ñu war a ñëw ci li nga xam ni moom lañuy wax li xew ci wal Walfadjri muy signalam bi nga xam ni moom lañu dagg mu am lu daan xew démb mu mel ni yaakaar yàgg nañu koy doon bëgg di dagg ci ay jamono waaye mu am taxawaay boo xam ne El Hadj Sidy Lamine daan na ko taxaw loolu nag ñu fas yéene ko fàttaliku tey teyit xool ni ko Sidy daan defee ak ni nga xam ni noonu lañ koy defee tey ndax dafa am lu ci manqué wala. lan mooy sabab gi ba Walfajiri daal léegi fu nit jógee rek daal di ñëw dagg si jaalam mbokk yi ak xarit yi lii mooy li nga xamante ni bii mooy li ñu fas yéenee waxtaane bi ci njëkk dañuy waxtaanee ki nga xam ni mooy Cheikh baara njaay boroom def gis. kan mooy Cheikh Bara munuñu ni xam nañu ko waaye am na lenn lu ñu xam ci moom parce que jot nañu liggéey. daanaka lu ëpp ñaari at ñun ak moom ñuy def ab émission boo xam ne sénégalais yi dañ koy bàyyi xel Cheikh Bara dafa nekk nit koo xamante ni sunu borom dafa dogal muy yëngu ci li nga xam ne moom la ñuy wax pajum cosaan yàgg ci lool di nuyu bu baax ki nga xam ne mooy Cheikh Taalif nga xam ne yàgg nay def ak moom li nga xamante ni bi mooy ay émission di waxtaan ci li nga xam ni moom la ñuy wax bi cosaan Cheikh Bara yàlla dogal ma am émission boo xamante ni bi dama koy yore émission bi mu ci mel ni tàkku show ma soxla benn rubrique boo xamante ni bi maa ngi ko tuddee pajum cosaan ma proposé ko Cheikh baara Ndiaye boroom def gis ak beneen sëriñ boo xam ni jàpp naa ni soxlawut sax ma site noomam waaye ñoom ñaar ñëpp ñu daal di koy nangu wax ni mën nañu def li nga xam ni moom la ñuy wax émission boobu ginnaaw gi ma ne bon di jël nit beneen yoon nga indi keneen mën nay indi daal loo xam ni li ma ci jublu peut-être mën nay bañ a demee noonu après ma ne bon wax Cheikh Bara ne ko léegi daal man dama bëggoon émission bi mu nekk loo xamante ne bi yow yaa koy présenté chaque jeudi mu nangul ma ko daal ne ma loolu mën na ne amul problème après ñu daadee tàmbali li nga xamante ni bi mooy émission bi di ko def suñu borom dogal saa suñuy def émission bi ñuy toog di waxtaan laataan ñuy tàmbali wa ilaa bu ñu tàmbalee ba pare ñuy discuter ci wàllu li nga xamante ne bii moom la ñuy wax actualité di waxtaan ci li xew ci jamono ji euh, ma gis ni Cheikh nit la koo xam ni am na ay gis-gis yoo xamante ni bii daal nemmikuwuma ko ci sénégalais yu bari ñenn façon gis-gis yi parce que nag yàlla dafa dogal lu ci bari euh, boo daan toog di déglu Sidy Lamine di ko bàyyi xel si di ma sama wax benn bis ne ma eh, am na loo xam ne yàlla may na la ko paren saay koo xool ba ne lii mi ngi ci moom eh, day fekk mu ne ci moom loolu si Lamine dafa ma ko mës a wax loolu sax moo tax ma daadee gëm yenn yi moo tax léeg-léeg bu ma waxee ne ma eh, diw loo ci xalaat wala noo ci gisee bon dama koy jox li nga xamante ne bi mooy sama gis-gis wala mooy sama xalaat dëgg-dëgg waaye du ma euh, wax loo xamante ni peut-être sax paren saay sax mën na bañ a nekk loo xam ne sama intérêt mais damay jàpp ni rek ki may laaj nit la koo xamante ni kii euh, li mu soxla ci man bon naa ko doyal donc loolu nekk loo xamante ni bi tamit day tax nit ñu bari ma leen seetlu di bàyyi xel ci ñoom Cheikh Bara nag bi may wax ak moom ma constaté benn mbir gis ni nit la koo xam ni am na lu différent par rapport ak ñu bari ma ne kii daal ëpp naa bàyyi muy wax rek lu jëm ci wàllum pajum cosaan donte loolu wax na ci lu baree bari ba sénégalais yi xam ko ci moom faw lii nga xam ni moo ne ci moom te ñu bari yëguñu ko faaw ñu wan lii askan wi ma ne ko Cheikh Bara faaw ñuy waxtaan ci wàllu di dugal politique ci li nga xamante ni mooy wàll wi nga di ci joxe sa xalaat pour sénégalais aussi tamit euh, di jariñu ci li nga xamante ni bi man gis naa ko ci yow mu nangu ko ne ma amul problème dans un premier temps sax bon xaw na kii ba ci ak mu ne ma amul problème mën na ne boo gisee ñu doon jël luy tolloog cinq minutes di ko dugal ci li nga xamante ni bii mooy actualité yi te loolu tamit dama gisoon ni luy gën a jaay émission bi la parce que sénégalais yi aussi tamit dañu bëgg actualité dañu bëgg di xam li xew ak tamit nit ñi nan la ñuy gisee ci li xew ci pénc bi ñu continuer ci nga gis sénégalais yi di ci accroché bu baax a baax di jàpp ci li nga xam ni mooy mbir mi ba mujj gi mbir mi toll foo xamante ni fii ém na àdduna dem ba ñi nga xamante ni bi tey ñooy politiciens yi yi ko doon ñàkkal fayda dès le dem nañ ba xam ni nag sawaay yegg si na foo xamante ni fii wa ilaa romb na leen di dem loolu nekk li nga xamante ni bi loolu mooy Cheikh Bara Ndiaye borom def gi saa yu ñëwee di gën a surprendre di gën a surprendre ñi nga xamante ni bi ñooy public bi koy déglu ci ñawam ak xalaat yi nga xamante ni bi suñu borom may na ko ko mu nekk nag nit koo xamante ni bi aussi tamit saa suñuy def émission mën na ñëw def émission mais Cheikh Bara à chaque fois balaa ñuy def émission dañuy toog discuté ci li nga xamante ni bi mooy actualité bi waxtaan ci mu wax ma point yi nga xamante ni bi moom la bëgg ñu traité ci ci Euh, suba ñu waxtaan joxe te li nga xamante ni mooy suñuy xalaat mu nekk tamit nit koo xamante ni kii ku jàmmi réew mi yitteel la loolu lu may wax fii la teyit lépp lu am lu dul jàmm defe naa nekkul nit koo xamante ni kii nit ku violent la te nit la koo xamante ni kii nit ku bëgg jàmm la moo tax bi ma déggee ñuy wax naan euh, dafa am ay tuuma ñu gis naan ay xale yoo xamante ni da doon wax naan defal li defal lale ma ne noo kooku du Cheikh Bara wa ilaa kiy wax loolu xamul Cheikh baara parce que jokkoo nañ ci ay points yu ne mais à chaque fois jàmmi réew mi mooy li nga xamante ni bii moom lay yitteel ba benn bis mooy bi muy wax ne Ousmane Sonko bu sañoon day dem wuy ji ci procès bi ndax bu demee wuyu si loolu yëpp ngir rek li nga xamante ni bii mooy jàmm dellusi et pourtant am na ñu bari ñoo xamante ni bii mere nañ ko ci mbir moomu. kon Cheikh Bara Ndiaye man dama jàpp ni sénégalais yi ko xam-xam nañ ni sénégalais la bu baax ci réew mi nit la koo xamante ni day liggéey teyit ay nit ñu bari bootu ci moom yaakaaree seen am-am ci li ko sunu borom may mu nekk nit koo xamante ni kii nit ku diiñ la nekk nit koo xamante ni kii tamit nit ku gore la te jàpp naa ni li mu doon wax du njariñu boppam mais njariñu réew mi la amut lenn loo xamante ni doon na ko wax loo xamante ni bii njariñu boppam rek la déedéet waaye njariñu réew mi mooy li nga xamante ni bii mooy kàddu yi mu daan yëkkati kàddu yi muy yëkkati noonu nag bu demee ba nga xamante ni bi tey lakk nañ ci otoom ndax ñenn ñoo xam ne dañu jàpp ni kat li muy wax daf leen di déranger wala day yàq ay mbiram ñu wëlbatiku teg ko loxo Sénégal gi yëpp wax dëgg fa yàlla am nañ loo xamante ni bii lu leen mitti la parce que dama jàpp ni ñu mel ni Cheikh baara ñi gën ci président de la république lañ parce que nekk nañ nit ñoo xamante ni bii ak lu mën di am danañ wax président li nga xam ni mooy dëgg man damay jàpp ni ñi ñuy tuddee xaritu président bu ma ko xoolee ci beneen angle damay gis ni ñooy noonu président de la république man damay gis ni ñi nga xam ne ñoon lañ jàppee noonu président de la république man damay jàpp bu ma ko xoolee ci angle bi ma koy xoolee damay jàpp ni ñii ñooy ñi gën ci président de la république parce que tey ñi puus yenn yi ba yenn yi yegg si fii moo waral image u Sénégal ñaaw gi mu ñaaw tey ci bitim réew te image bi bu ñaawee ki nga xamante ni kii mooy président moo ci gën a am lu ko mitti kon jàpp naa ni Cheikh Bara nag bokkoon na ci ñi nga xamante ni bii daan nañ ko artu ngir ñu bañ a yegg foofu kon Cheikh Bara njaay nit la koo xamante ni kii nit ku baax ci réew mi la ñu koy ñaanal mu génn fi nga xamante ni fii fi la nekk dellu ci njabootam di ko ñaanal mu delluwaat ci njabootam parce que Cheikh Bara vraiment nit la koo xam ni li ko indil li ko dal nii tey du lenn rek lu dul Sénégal waaw du lenn loo xamante ni bi moo ko indil lu dul Sénégal nit ñi gis ni peut-être dafa am féete waaye jàpp naa ni bu ma doon wax ne Cheikh Bara kan la féeteel damay wax ni Sénégal la féeteel parce que jàpp naa ni Ousmane Sonko mi ñuy wax ni moom la féeteel am na taxawaay bii tey. nga xam ni moom lay xeex bu ko taxaw bu fal woon ëllëg taxawee ko Cheikh Bara dina taxawaat fi mu ne xeex ko loolu mooy li nga xam ni moom laa gëm parce que toog nañ feneen foo xamante ni du ci caméra yi mu wax ma ne ma lii may def de bëgguma cee fayeeku lenn bëgguma tamit am ci ab poste wala leneen loo xamante ni bii du waxi kaw mais waxi suuf la kon loolu dafa nekk loo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla ba mu koy wax ci kawit fekk na mu yàgg koo wax ci suuf mbokk yi ñu ngi koy ñaanal moom Cheikh Bara Ndiaye borom def gis mu delluwaat ci ay yitteem mbokk yi ak xarit yi eh, dañuy ñëw ci beneen point di ab journaliste boo xamante ne bi ñu ngi naan ko alit Ndiaye di boroom xam-xam yàgg a joxe xalaatam ak gis-gisam ci réew mi muy koo xamante ni ku ma naw la koo xam ni dama koy déglu ci ay point yu baree bari muy joxe ay gis-gisam ak ay xalaatam. mu am loo xamante ni wax na ko ñu ànd ak ñi nga xamante ni bii ñooy waa Rési te déglu Aline Ndiaye je vous taarix man li ma xam. mooy foo ma fekk ku ñuy wooyee dictateur. mais na maanaam koo xam ne day ñëw. tëj gémmiñ yëpp di def lu ko neex di dawal lu ko neex foo mës a fekk dictateur balaa moo tàmbali xam-xam lay njëkk a song ak ñi nga xam ne dañoo am xam-xam wala ñu am xalaat di ko wax donc Hitler ba mu bëggee jël pouvoir bi lan lañ def ñoom dañoo taal li ñuy woowee Bundestag maanaam assemblée national Allemagne tey ji am na ñu taal université ndax bëgg jël pouvoir bi donc bëgg a jël pouvoir taal université mooy yow fonk loo xam-xam déjà te ku fonkul xam-xam fonkul xalaat dara yitteelu ko lu dul jot ci nguur gi man na maa jàpp ne bu ñu la joxee nguur gi li nga ciy def du doon njariñu réew mi donc tey li ëpp solo balaa ñuy atte ñenn ñuy xeex ci wàllu politique de xëccoo nguur li ëpp solo mooy sécurité maanaam kaaraange réew mi ñu delloosi ko ba pare buñ ko delloosee ba pare nag leneen lu ñu def mën naa safe mais dafa am ñoo xam ne Sénégal ni muy doxee ak confrères yi ni mu fi amee doole neexu leen li ñu bëgg mooy li am ci dëkku arab yi am ci yeneen dëkk yi mu am fi te ñun arab yi moomu ñu ñooñu gis nañ ne ñi ngi ci réseau sociaux yi depuis ay at di attaquer confrères yi ñooñu gis nañ ne depuis ay at am na ñu leen di waxal ñoo xam ne dañuy xotti war ma kilifa diine yi donc de fi mu ne réew mi lañu ñu attaqué sénégalais yu bëri nag voilà kàddu yi mooy yi nga xamante ne bi moom la Alioune Ndiaye yëkkati euh, mu nekk kàddu yoo xamante ne bi soo ko dégloo maanaam euh, dafa am loo xamante ni bii moom la wax ci wàllu dictateur dem na ba jël référence ci ki nga xamante ni moom la ñuy wax Hitler Hitler nekkoon ki nga xamante ni ki mooy njiitum réewum Allemagne yëngaloon àddina bi si Lamine daan naa ko faral di dégg muy wax naan Hitler dañ ko élire démocratiquement et pourtant après gis ngeen taxawaay bi nga xamante ni bi moom la taxaw li xew ñu taal université mu nekk loo xamante ni bi sénégalais yëpp dañ koy ñaawlu parce que kenn rafet lu wut taal gi nga xam ni moom lañ taal université waaye su mbir amee boroom xel mu mel ni Alioune Ndiaye ak ñeneen ñu mel ni moom ñi nga xamante ni bi ñi ngi wax euh, dañuy bëgg ci seeni kàddu parce que seeni kàddu day am solo ci pénc bi ñu jàngat mbir yi waaye pas ñu ñëw rek wax ñu li xew parce que li xew lu ñu gis la ñu taal université bi ñu taal fac droit mu nekk loo xamante ni ci ban bés lañ ko taal muy bés bi nga xamante ni bi décision jib na ca palais de justice ca tribunal ba ñu jël fa ab dogal boo xamante ni bii dogal boobu jàpp naa ni mooy li sabab lakk gi nga xam ni moom lañ lakk fac droit ginnaaw bi nga xamante ni bii ñaawlu nañ ko ba pare mais loolu man dama jàpp ni bu fekkente ni ku mel ni Alioune Ndiaye wala ñeneen ñi nga xamante ni bi sunu borom may na leen xel ak xalaat taxaw nañ bay jàngat war nañu xool message bi nga xamante ni. moom la xale yi wax jàpp naa ni ñoom ñi ko def dañu jàpp ni est-ce que jarati nay jàng yoon loolu mooy li ñu wax man ma gis ko ci li nga xam ni moom lañ def parce que du moment que fac droit laal nañu ko da nga cee war a gis leneen lu wuuteeg nga jàng ko rekk jàng koo xamante ni kii jàngatu par par loola waaye da nga war a xool ne tëbuñu tëb jóg dem lakk ko mais dafa am lu xew ba pare ñu soog a lakk mbir mi li xew ba pare nag lan la ndax ànd na moom ci dogal yi nga xamante ni moo génn keroog ca bis ba bu fekkente ni bi ànd na ci dafa war a ñëw argumenter loolu joxe ay explication yuy war a tax ñu nangu dogal yi nga xamante ni bii tey moom la ñu àtte foofu defe naa ni bu fekkente ni nangu na jàngatoon na loolu doon na gën a am solo dafa am benn histoire boo xamante ni bii euh, mës naa ko fi wax bi wax ni dafa am benn naar bu doon julli ab xale ruux ko mu yëkkati. ñaar fukki dërëm may ko xale bi mu am keneen koo xamante ni kii ñëw na di julli xale bi ñëwaat ruux ko kooku pale rey ko ñu ne ana kan moo rey xale bi ndax ki ko rey moo ko rey wala ki ko mayoon ñaar fukki dërëm yi kookoo ko reylu loolu même chose loolu mooy li nga xam ni moom lañu war a gis ci li xew ndax lan moo lakk université Cheikh Anta lan moo ko lakk parce que tey bu ñu jógee rek ne xale yi ñoo ko lakk dëgg la ñoom ñoo passé à l'acte ñoom ñoo dem taal waaye lan moo sabab loolu am est-ce que bu dogal boobu jubutoon comme ni mu juboo jibee nit koo xam ni dañ ko jiiñoon viol jiñ ko menace de mort nga ñëw ci ñaar yëpp nga dindi ko mais loo xamante ni bi bokkutoon ci dossier bi ñu ñëw indi ko wax ne lii la est-ce que ki dem di taal moom léegi àndati na ci li nga xam ni mooy loolu Aliou Ndiaye defe naa ni foofu laa ko doon xaar ak ñu mel ni ñu moom ñu ñëw tegal ñu loolu parce que nag ay nit lañ yoo xamante ni bi sénégalais yi dañ leen di déglu di leen bàyyi xel loolu c'est très important parfois nga jàngat mbir yi xoolaat li nga xamante ni bi dëgg lii mooy li nga xamante ni bi mooy li am mais li am ba pare lan moo tax mu am mais li am ba pare moom journaliste yi wax nañ ñu ko nañu lakk nañ université bi loolu mooy li am mais lan moo waral lakk gi loolu buñ ci demul rekk ëllëg si biir leneen dana am lëllëg si biir leneen dana am te bu leneen amee musiba lay doon donc jàpp naa ni dafa am réew mi fi muy toll dañu soxla ñëpp te képp kuy wax waxe li nga xamante ni bi mooy aqulaay taala c'est très important parfois nit ki di wax te li muy wax euh, mu seet ci sunu boroom c'est très important parce que loolu dina gën a yombal sunug nekk ci pénc bi mbokk yi ak xarit yi Walfajri Walfajri dafa dañ ñoo tàmmal di ko tëj tëj biñ ko tëjoon ba le passé Babacar Diagne woon na Cheikh Niass ci loo xamante ni bi xewoon na ca Touba ak Mbàkke Cheikh ñas yëgoon na yëf yi ñu coupé signal bi ay fan delloosiwaat ko te jàpp naa ni biñ ko delloo siwaatee it am na loo xamante ni bi xewoon na waaye bi mbir yi xewee Walfadjri defewu ko sax nam ko daan defee mais def na li ñëpp def mais terewut seppiwaat nañ ko daal kuppe li nga xam ni mooy signalam Sidy Lamine Niass yàlla na yàlla dolli ay leeram ab taxawaayam ci groupe Walfadjri bés walfajiri gars jógoon nañ ñëw ngir couper ko mu amoon ay kàddu yoo xam ni yëkkati woon na ko ci jamono jooju ñu dem seetaan élément bi soog a ñëw joxe sunu gis-gis je vous en prie. waaw li am solo moo koy wax fii nii laa ñëwoon seen kanam le 23 juin. bi ma déggee ne ña ngay attaqué si Walf attaque nag amutoon bi yoon nag ñëw nañ yegg si nañ waaye nag askanu Sénégal itam ñëw na mi ci bunt bi askanu Sénégal ñëw nañ taxaw en bouclier li taxaw tey ci buntu Walfajri yaakaar naa ne bu bu leen day ñëwee dangeen ngeen dégg massacre bu mësta am ci Afrique bu mësta am ci àddina ndax ñëpp a ngi tëdd ne na leen day jaar ci seen kaw ñëpp a nga joxe seen bakkan ñëpp a ngi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah dugal ko dugal ko waaw président euh, Wade euh, président Wade mi ngi woote Idrissa Seck itam mi ngi woote kon ku ci njëkk ñëw rek jox ñu ko mhm. yéen ñëpp fu nit nekk ci Sénégal ñaan naa la mhm. nga yëkkati baatu laa ilaha illallah muhammad rasulillah xam leen ne loolu rek a koy sottal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah fu nit nekk rek yëkkati ko puisque fii ñu toll bu ngeen gisee li tëdd ci kanam wal fajiri ci mbedd yi ko wër yëpp léegi ñoom ñëpp nee nañ na blindé yi ñëw jaar ci seen kaw ndax dañoo buggu ñoom ñoom itam ñu bokk ci xare bi bokk ci badar bu fekkee ki Sall fii la bëgg a mujjee réew mi bu fekkee lii la mu bëgg a mujjee ak li mu fi fekkoon ne yegg si le 23 juin man la woon ak moom ak Moustapha Niass ak Mansour Sy Djamil ak pend Diallo ak tant Penda Mbow ak tant de personne te fekk veille bi fii la woon bi ma nekkee assemblée ñu wax ma ko ni ma déparé woon nii nekkoon ci dëkk bi noonu laa déparé ñëw fekk fi PEF Pierre Edouard Faye ñu ñëw noonu laa ñëwaatee tey ne bu fekkee ne am na kenn ku ñu war a jàpp na ñëw nekk man bu amee kenn ku ñu war a rey na ñëw nekk man lii ñii ñëpp nekk nekk fii. indiwuma leen fi duñ samay taalibe duñ samay doom duñ samay jabar duñ samay leneen dafa am luñ gëm rek dañoo gëm profession dañoo gëm un travail boo xam ne da nga ciy déglu les deux donc l'autre son de cloche il faut un travail boo dégloo Moustapha Diop léegi nga xam ne moom ak Yakham Mbaye ñoo bokkoon nekk di liggéey ñoo bokkoon nekk mu wax ko wax ji nga xam ne xarit moo ko wax xaritam teew ko nii Macky ka bu fe ma ma ma résultat yi moo tax ñu wax ko am nañu li nga xam ne mooy le le le bureau test yi nga xam ne luñ la génneel loolu la réew mi di génne bureau test yooyu nag non bi daf cee gagné massivement looloo moo tax ñu tiit xam ne loolu c'est la fin waaye bu fekkee nii lañ koy jeexalee Ablaye Wade jeexalewu ko nii Euh, nu mu tuddati euh, euh, Abdou Diouf jeexalewu ko nii Senghor jeexalewu ko nii makki Ka bu fe bu fekkee nii nga ko bëgg a jeexalee doo doo ko fekkee mukk man maa la koy wax. alaaj si Lamine Niass yàlla na yàlla dolli ay leeram te xare ko ci àjjana yu kawe muy kàddu yi nga xam ni yëkkati woon na ko ca jamono jooju mu mel ni Walfadjri dañoo ñëwoon ngir arrêté ko ci jam ci booba mais siidi yëg na ko bi mu ko yëgee dafa ñëw def déclaration mbooloo mi tamit daal jóg ñëw Walfadjri fees dell ak i nit fees dell ak nit ba nga gis ni état deltu ginnaaw ba loolu amut mais li sabab loolu ci jamono yooyu jàpp naa ni coupé woon Walfadjri euh, yombutoon noonu ci wàllu technique parce que fii am na fi ab antenne amoon na benn bu nekk tamit foofu ci immeuble Kébé am na fa benn Modou Diouf mës na leen a expliquer fii ne leen gars biñ ñëwee bi Walf amee problème ak Excaf ci jamonoy prison break ba gars yi ñëwoon coupé woon affaire yi du taal bi nekk fii mu tàkkaat gars yi jaaxle jékki-jékki gisaat si Lamine taxaw di wax mais léegi nag télé yëpp dañ leen jël daanaka dugal leen ci TNT parce que Walfadjri coupé nañ ko ci TNT coupé ko ci canal yi nga xamante ni bii tey. fa ñuy toog la ñuy toog coupé waaye bu njëkkoon loolu mënutoon a ne parce que Walfadjri fi mu toll nii mi ngi dox ci satellite bi am na ñoo xam ni yëguñu ni Walfadjri coupé nañ ko mooy ñi nga xamante ni bii ñi ngi ci sous-région beeg et cetera ñooñu ñi ngi koy seetaan ci satellite bi kon ñi am jafe-jafe gi mooy ñan mooy ñi nga xamante ni bii tey euh, ñi ngi nekk fi jàpp naa ni ci jamono ji Sidy Lamine doon def lii bu TNT amoon ak kii am na ñoo xam ne dañuy taxaw ne bu fi Sidy nekkoon du am akañ jéemoon nañ ko mais Sidy dafa am nu mu daan doxalee ba tax lu mel noonu doonutoon mën a am askan wi génn mais fi situation dëkk bi toll ak réew mi fi mu toll ak nit ñi defee tele yi bu boobaa Sidy doonutoon am lii nga xam ni amoon na ko démb kon tamit dañ ko doon toog fa ñu toog couper ko loolu rek c'est pour wax ñi nga xamante ne bi ñu bari dañuy wax ne bu fi sii di nekkoon du am mais bi fi sii di nekk boobu technologie bi ni daal di yowuñ télé yëpp daal di leen di dugal ci TNT bi parce que jël télé yëpp dugal leen ci TNT bi jaaral leen par canal ak yooyu loolu ñoom ñooy dogal nu mu leen neexee waaye nag bu ñu nekkee ci am réew moo xamante ni bii tey réew mu sérieux la di dox entreprise bu mel ni Walfadjri nga mën ne ko ratt amul benn kilifa goo xamante ni génn na wax ne lii la walfu def ba tax ñu tëj ko waa Walfadjri di demander lan mooy li xew te amul kenn koo xam ni génn nga wax ni lii moo tax ñu tëj Walfadjri mel ni walfu daal ab taabalu caaf la bu ñu ñëw ne boroom laaleel mel ni Walfadjri ay nit nekkuñu fi di liggéey di daan seen doole di gagner seen vie honnêtement mel ni Walfadjri moom nekkut société boo xam ni mi ngi fay ay impôts mel ni Walfadjri moom daal euh, lu leen neex ñu teg ko sans pour autant que ñu indil benn kayit guy firndeel ne lii a tax parce que bi ma dégla la Oustaz Assane ak Cheikh ñoom ñëpp ñu ne ba fi mu nii tey amul lenn loo xamante ni bi moom lañ leen wax ni lii a tax ñu tëj wal Walfadjri loolu day nekk loo xamante ni bii lu doy waar la jàpp naa ni nag siid nag moom beneen dimension la boo xamante ni bii tey jàpp naa ni bu fi nekkoon mën nañu tëj waaye siid yi nit ku am ay pexe la tey ku ñaw am xel la ku sunu boroom may la te jàpp naa ni même bu fekkoonte ni bii mën nañu toog fa ñuy toog di tëj balaa ñuy tëj. danañ ko xalaataat bu baax a baax a baax te parce que dinañ xam ni kii ñu jàkkaar lool tamit beneen niveau la toll jàpp naa ni nag ñoom léegi dañu jàpp ni daal Walf ay booya fi nekk nañ leen noggatu jàpp naa ni li xew ni yëpp noggatu la waaw te defe naa ni Walf waroon na nekk tele bi nga xamante ni bii tey président Macky ak ñi mu àndal ci tele yi ñu war a gën a respecté la bokkoon parce que ci jamonoy ab Ablaye Wade amoon na ay fitna yoo xam ni tegoon nañ ko Walfadjri moom mooy bi muy wax ni 23 juin si di taxoon rip amoon na ay jafe yoo xam ni tegoon nañ ko Walfadjri mais terewut président Macky Sall jafe-jafe yañ ko doon teg moom ci jëmmi boppam moom it terewul fu mu dem Walfadjri couvrir ko ba mu taxaw gërëm Walfadjri wane ni Walfadjri day tele bi nekk ci dëgg Moustapha Cissé Lo gërëm ko kon tey jàpp naa ni waruñu ko sédd lii parce que nag Walf télé la boo xamante ni bii askan wi safoo nañ ko jàpp naa ni nag li tax li xew-xew bu ma xoolee li xew ci pénc mi police def point de presse am wax mu jàll ci ay tele ba ñu dem ba France vingt 24 di juppanti sunu kilifa yi di leen wax ne leen li ngeen ñu wan ak li xew demeewut nii lañ doon bañal Walf moom la France 24 def parce que xam naa dañ doon ragal ni bu ñu defee lii ñu def est-ce que Walfadjri du ñëw wane vidéo yi ngir leeral nit waaye nag tey France 24 def na ko liggéey na liggéeyub tele yeneen yi moom defe naa wax nañ ko muy rajo yi nga xam ni ñi ngi fi ne parce que télé yi nga xam ñoo fi nekk man dama jàpp ni dañu waroon di wane image waaye ginnaaw dañuy wax donc léegi dañoo nekk ay rajo waaye li am solo euh, li sëriñ Abdoulahat doon wax te Omar Gueye fàttali woon ñu ko daal di ne bëri pexe juba ko gën nañ leen wàññi pexe yi te fexe jubal mbokk yi ak xarit yi ñuy amaat mbégte ak kontante di nuyu ñi nga xamante ni bi ñoo nekkoon ci xarala gi El juuf Bour du Abdou ab Ablaye jàlloo ak Fallou Soy bu Diop directeur programme ñuy doxante dig daje beneen yoon ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf.